wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadimihi bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sattee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara bu baax te di leen ndokkeel itam di tàmbalee ci nuyoo bi ak ziyaar bi kilifa gu tedd gi nga xam ne moo ne ci boppu njabootu Cheikhul Xadim di al Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llah wa xafida wa nasara yàlla na ko suñ boroom yàggal lool ci kanamu kanamu yoon wi ak ci kanamu diine ji kanamu njaboot gi itam te may ko wér dëgëral ko itam ba mu àggale ay yéeneem ak i naalam ci toolub lislaam bii nga xam ne mooy toolub Seexul Xadiim di ziyaare di ko ziyaare bu baax nag di ziyaare mboolem njabootu sëriñ bi yëpp di ziyaare mboolem jullit ñëpp di ko ndokkeel di ndokkeel it alaalamul islaami bi yëpp ci atum lislaam mu bees mi nga xam ne ci lañu tàbbi Eh, muy alaamul hijri atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ginnaaw gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy mille quatre cent quarante trois eh, at mu bees mu teru nag ci atum jullit ndokkeel dana ci baax waaye itam mm, ñaan itam nag dana ci baax ñaan suñu borom subhaanahu wa taala at mii ñu dugg mu doon atum naataange doon atum xéewal doon atum mucc ci mboolem ay balaa ak mbas ak i lépp luy niru jafe-jafe ci àddina ñu ngi koy ñaan ci baaxu Seexul Xadim di ñaan e, suñu borom itam defal ñu fekk ko at yu bare bare bari te rafet aw fekkin e, kon ñu ngi ci ndokkeel ñëpp rek xam ngeen nag bokk yi tey mooy Eh, fukki fan ak juróom-benn ci weer woowu ma tudd léegi shahrullahi muharram xam ne mooy bopp bopp eh, bopp at mi mooy weer wi njëkk ci at mi waaye di weer di wi nga xam ne itam moo ubbi eh, weer yu tedd yu màgg yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy tuddee al ashurul hurum nga xam ne moom muharram moo ci njëkk rajab topp ci ñee ba ci mujj ga nag ñaari weer yu mujj yi ci des di diggu tabaski ak tabaski tëj at mi kon tey jii mooy fukki fan ak juróom-benn ci weeru muharram ci mille quatre cent quarante ci mille quatre cent quarante trois tolloog ñaar fukki fan juróom ci weeru août ci atum deux mille vingt et ñu teewaat fii nag ci fu tedd fii nga xam ne mooy jumaay Cheikhul Khadim ànd ak yéen ci seen télévision bi nga xam ne mooy bi njëkk boo xam ne jumaay Tuubaa ji jumaay ju mag ji moo ko moomal boppam mu ñu koy wax GMT TV muy télévision grande mosquée euh, bu Touba ñu ñëw it nag ci suñu jataay bi ñu baaxoo ànd ak yéen ci ñaar fukki fan ak juróom yu ne ci weer wi te ñu tuddee ko xayaatu Cheikhul Xadim muy dunduk Cheikhul Xadim muy émission boo xam ne waa daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci doxinu jumaa ji ñoo koy amal ngir jublu ci rek jàngale dunduk sëriñ bi ndax nañ ko waxewoon ca anam jataay bu njëkk ba Euh, ku ne xam na ne Cheikhul Khadim ak dundam lépp dafay njariñ ak dundam lépp dafay tawfiq joo xam ne dafa fees dell it ak ay eh, ay bind yoo xam ne nit ki ki bëgg lu baax su ko teewloo dana ci mën a jëlee lu mën a jariñoo ci diineem ci àddinaam ak ci àllaaxiraam moo waral ñu jël émission bi tudde ko noonu ko defee nag bu ngeen fàttalikoo ci émission yi jàll ñu ngi doon waxtaane euh, lenn ci ñi nga xam ne ñoo seq sëriñ bi ci ay wayjur ñu tàmbale woon ko ci sëñ Mor Anta mi nga xam ne mooy wayjuram bu góor te am lu ñu jotoon a junj ci moom waxoon ne bu ñu demee ba tollaat ci njàngum sëriñ bi danañ ci dellusiwaat waaye ginnaaw àgguñu foofa ñu taxawoon ci soxna su tedd si nga xam ne mooy soxna jaaratullahi Mariam Bousso mi nga xam ne mooy juróom bu jigéen moom itam yàlla yàlla def nañ ñu amoon ci ñaari jitaay gi yéen waxtaane woon lenn ci ay jikkoom yi nga xam ne jikko yum ràññeeku lool la woon mu bokkoon ci ragal yàlla ga te ragal yàlla ga buñ ko buñ ko tuddee rek tuddaale woon nañ ak sàmmoom tuddaale woon itam eh, ak fegoom ak mboolem jikko yi nga xam ne dafa dugg ci biir jikko yi taqwa yi nga xam ne mooy bopp <clears throat> mooy bopp bépp yiw di bopp bépp barke itam ñu diggoon leen nag ci émission bi jàll ne bu ñu delsee incha allahu taala ngir mottali lu aju ci jataay yooyu danañu nag eh, waxtaane xasida goo xam ne ki ko def dafay shaahidu shaahidu ayaan la moom dafa fekke jamonoy soxna jaara dundu soxna jaara kon xasiida gi xasiida gu mat a jàngat la ndax kon delluwaay la ab delluwaay la ci taarix ci jaar-jaari soxna si rawatina ngir mën a xam lenn ci ay meloom waaye ngir mën a xam lenn ci ay jikkoom te ki ko def ki def xasida gi it doon kilifa gu tedd ku baax koo xam ne doonte bi muy def xasida gi booba la ko andi woon ci daara ja ci daara yi sëñ Mor Anta Sali moo doon sàkku al sàkku xam-xam man kon dongo daara la woon waaye nag dongo daara boo xam ne bu euh, ràññiku la ndax kooku mooy sëñ Masamba Mariama Jóob mi nga xam ne euh, sëtu Maxtaar Ndumbe ndax Masamba Anta Ceebo mooy way juróom Masamba Anta Ceebo Madun Pend Buya mooy way juróom Madun Pend buye nag nga xam ne ne mooy doomi sëñ Maxtaar Ndumbe mi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa wax ci gisaaw secours bu arab bi wax ne ci jamonoom moom Maxtaar Ndumbe moo nekkoon sangu sangu jamono jooja sangu jamono jooja ci xam-xam ci ragal yàlla ci jikko ju baax ci yiw ci lépp kon mu Sàmba Mariam moomu nga xam ne yàlla dafa dogal euh, mu jaar ci loxo yi ci daara yi sëñ Mor Anta gis soxna jaara jàngat ko bu baax a baax a baax a baax di borom xam-xam tax mu def ci mu xasida goo xam ne xasida gu yéeme la goo xam ne euh, képp ku ci delluwaat danga xam ne euh, jaar na nafar jaar na nafaraat bu baax a baax a baax euh, te moom it moom ma sàmbante ci ba moomu ma sàmba Mariam moomu di doy ma sàmbante ci ba boo toppee ak càllalaam jëm si ci suuf da gis ne maam la ci Cheikh Mouhamadul Murtada ibnu Cheikh al Xadim maam ju ko jege lool sax nag euh, kon ngir njëkkanteek waxtu wi rek dañuy daal di dugg ci jéem a jàngat xasiida gi nga xam ne lay mel ne photographie boo xam ne sëñ Massamba Mariam moomu def ko photographier soxna jaara xanaa ginnaaw bi mu tàmbalee xasiida gi ci sant yàlla mi nga xam ne moo def lislaam muy yëg-yëg yëg-yëg bu sori ci xol ndax dafa am liimaan ak lislaam ak lixsaan moom lislaam suñ borom moom nga xam ne moo def lislaam mu mel noonu ba ku ko xas mos dara dootu la saf te ni mu defee lislaam mu nekk yëg-yëg bu neex bu am neexit wu sori ci xol suñ borom moom it mooy ki mat sant ndax moo def kéefër ak réer ak perte mu def ko mu doon loo xam ne lu ñàkk solo la mu doon loo xam ne lu ñàkk maanaa la euh, ndax nit ki bu réeree rek nekk ci kéefar perte nga mën na koo mën na caa juddoo waaye mu sant yàlla moomu nag julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñaanal ko xéewal ak mucc boole ci ay ñooñam ak saxaabaam ak képp ku topp diineem daal di nag wone wax nag li tax mu def xasida gi nag ginnaaw loolu mu ne maa ngi jublu nag ci woy wi ma woy maa ngi ci jubloo tagg soxna su baax gis nga baat bi mu njëkk a tudd rek baatu samxa li samxatin wa baadu fal qasdu bil manduumi madxatuna li samxatin summiyat bi jaaratil aana bi jaaratil aana wax ne nag jubluwaay bi du dara lu dul nag jubluwaay bi ci ci woy wi mooy tagg jigéen ju baax samxa koo xam ne dafa dafa baax mën a muñ mën a dékku eh, yaatu ginnaaw yaatu mbootu yaatu dënn lépp day dugg ci biit samxa koo xam ne nag ñoo ngi koy wooyee jaara léegi loolu nag defe naa moom itam am na lu muy tekki loo xam ne Euh, xëy na euh, du jaar xuus waaye wane na ne daal kon jaara ji moom nekkoon na luñ ko daan wooye moom moom soxna si rawatina ci euh, ci ci ci ak mujjam wala sax ci ak dundam gépp li ci ëpp bokk ndax moom ku ne xam ne lim fi nekk taxu koo taxu koo yàgg noonu ci ci àddina waxoon nañ ko koo xam ne fanweeri at ñett la ñu wax ne moom nga dund kon lim fi nekk bariwut waaye daal doonoon na ku dëkkaale ak boromam ci wàllu jikko ci wàllu ragal yàlla ci wàllu maandu moo tax mu tuddee ko jaara bi jaaratil ana mu ni ki bëgg a woy nag asilatin watanan mu taamu di nag wax nag jikko yi ak cosaan yi wax ne moom day ku am cosaan la ci réew mi ku am cosaan la ci réew mi ndax fi mu bokk wàllu goo ko jël rek mu dellu ci mbaax dellu ci yiw dellu ci ragal yàlla dellu ci xam-xam dellu ci sàmm waaye mu ne askan wi itam nag askan wu tedd la sharifatin nasaban loolu suñ Masamba Jóob moo ko melale soxna jaara wax na ci askan wu tedd ci la bokk waaye jikkoom itam nag nekk jikko ju tedd ca ngor ga ca maanu ga ak cee ca des yëpp karimatin xasaban mu ne kooku nag moo tax ak baaxam ak def ko mu doon ku gën loolu moom dafa leer dafa dafa fés ku ko xam rek xam nga ne ku baax la ci biir mbaax googu ak yiw googu ak tedd nga jooju ne ci moom mu am lum ko firndeele loo xam ne leeraloon nañ ci dara ca ba ñuy firi euh, waxi cheikh Mouhamadul Bachir ja ca minam te mooy lam waxoon ne soxna jaara ku daan topp boroomam la waaye ku daan topp sëriñam la ci lépp loo xam ne lu ko war la ci wàllu rafetal ak rafet aw toppiin moo tax fii itam sëñ Masamba Mariam noonu la ko melale rek mu mutiatin rabbaha wa cheykha sayidaha ardathu afaaluha lillahi idmaana mu ne soxna si may wax nag su ngeen xamul mooy kan maa ngi leen koy xamal mooy koo xam ne ku mënoon a topp boromam la joxe woon nañ ay misaal ci ni daan toppee boromam ci wàllu jëfee ndigali yàlla yi ca farata ya bu noppee toftal ca sunna ya ak ngëneel ya ci ak saxal nag saxal ko dàkk nag loolu sa wax na ko ca mujjug bayit wa waaye itam bokk na ci ni mu doon toppe boromam mooy itam wéetal gi boromam Cheikh Amadou Bés waxoon ne ku jébbaloon boppam boromam la moom soxna jaara ku jébbaloon boppam boromam la bàyyi woon ak boppam boromam loolu kon mooy tawxid ju kawe yoo xam ne yàlla baaxe woon na ko ko mu ne mu teg ci wa cheikha sayidaha ni mu daan toppe borom itam noonu la daan toppe ab sangam fii baatu topp la jëfandikoo moo tax mu saña ataf al cheikh ci rab mutiatan rabbaha wa cheikha sayidaha bu bu ne woon kuy jaamu boromam la ak ak ak sangam ba kon doona xaw a doy waar waaye dafa ne kuy topp ndax topp moom eh, dafa ëmb lu bari topp da ci loo xam ne yàlla da ko moom am ci loo xam ne ab jaam moom na ko te jaam buñ ko waxee ab ab eh, maanaam ndawal yàlla mi ngi ci biir maanaam koo xam ne yàllaa ko lu mel ne man may yuti ar rasula faqad ataa allah foofu baatub topp la jëfandikoo koo xam ne topp nga yàlla ku topp ndawal yàlla li mel nga ne ku topp yàlla ak wa atiu allaha wa atiu rasul topp leen yàlla te topp ndawam ku ne xam salaa li muy baax baax dégg nga du yàlla mbindeef la waaye suñu borom mi ngi koy ataf ci moom ci wàllu topp gi naka noonu itam topp boroom kër topp boroom kër dafay loo xam ne lu yàlla santaane la yéen saa sallam euh, gën cee soññee ndax xadis bo xadis bu siiw boo wax ne jigéen su wooree su su maanaa jullee jul maanaa julli juróomam woor weeru kooram sàmm boppam def caateg teg wa ataat zawjaha ba nag mu topp borom këram gis nga kon lu njëkk la yàllaa ko moom julli yaag koor gaag ak ci yaay lii moom borom kër bi moo ko moom moo tax fi mu ne mutiyatin rabbaha wa cheykha sayidaha waaw ah, te mooy sëñ Mor Anta Sali moom soxna jaara ku daan topp boroomam la lool nag waaye daa daan toppit ndigalal sangam da daan topp ndigalal sangam mooy li Cheikh Ahmadul Bachir waxoon ne qaa qaaimatun bi waajibaati diiniha fii ma baynaha wa bayna rabbiha wa fii ma baynaha wa bayna cheikh wa bayna cheikh al imaami qariiniha da daan taxaw ci wartee fi diineem ci la ko war diggam ak boroomam ci wàllu jaamu yàlla waaye itam da daan taxaw itam ci li ko war ci digganteem ak sëriñam mi nga xam ne moom la ko yàlla loon mu ne sëriñam boobu day ak taxawaay bu rafet bi mu ci taxawoon dey mel na ne euh, euh, ay ay ay ay jëfam moom soxna jaara gërëmloo na ko gërëmloo na sëriñam boobu mooy liggéeyal na sëriñam ci wàllu jëf ak pasteef ak taxawaay loo xam ne làq na ngërëmam te lépp nag yàlla rek a taxoon mu di ko def te loola da caa saxoon soo na jaar daawul def tey xëy baax su su ngoonee mu mel na nen wala su gont eh, baax bu xëyee mel na nen waaye baax ga daf caa saxoon naan li li wolof naan xëy baax yomb na waaye li jafe nag mooy nga sax ca te li gën ci jëf yi mooy la nga xam ne dañ koy saxal doonte dafa néew ndax loolu mooy raxas xol ni ko suñu waxee ci masalik mooy raxas xol te mooy may itam nga demal yàlla kon jëfam yu tedd yu baax yooyee nag moo ko may mu dem ba làq ngërëmal ngërëmal sëriñam te loolu misaal yi ci joxe woon ci jotaay jàll firndeel na ko waaye yemutoon moom soxna jaara ci taxaw ci diggam ak boroomam ci wàllu jaamu yàlla ibaadaat moo xam ibaadaat yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu jullee koor ak yu mel noonu ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu xol yëpp da ko def na mu ko war a defee waaye mu teg ca euh, topp sëriñam topp sangam waaye yemul ci yooyu nag ndax suñ boroom dafa am lu lu lu lu war sa digganteeg moom am lu war sa digganteeg ñi la yàlla booleel ci àddina muy say moroomi jaam ci wàllu jëflante bu rafet mu ne ñooñu itam jëflante bu rafet a rafet rafet la soxna jaar ko ak ñoom daawu ci doyadal kenn daawul ayibal kenn daawul noonoo kenn wala muy bàyyi kenn wala muy sori kenn mu ne nag ku mel nii nag ku ko sikkal wala nga ayibal ko yaa moom yaa nekkul ci dëgg yaa nekkul ci dëgg walam tuhin ahadan wala tushin abadan walam tubin amadan man aabaha maana mu ne jikko yu baax yooyu mu amoon nga xam ne ñëpp la defoon ñu doon ko ñoo xam ne day xool ci ñoom suñ borom mi leen bind waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa ci suñ wax ci ci naaju la doon bàyyi xel ci mboolem bindee fi yàlla yi kenn ku ne mi ngi sàmm ci yow àq yàlla mi la bind loolu moo taxoon jikko ji rafet ji ak makaarimul axlaaq ji ak jëflante bu rafet bi mu séq ak jaam ñi tax na ba ñëpp daan jóg wala ñu bari daan jóg di ñëw fi moom di wut si fajug aajo rawatina ñi nga xam ne ñooy ay dëkkandoom ak ñi nga xam ne ñooy ay bokkam te xamoon ko ci jooju jamono moo tax mu ne ñooñee ñëpp nag ku ci mas a jóg soxla dara ba wut si ko ci moom te fekk fekk mu doon lu mu yor lu mu moom boo ñëwee dana la ko jox waaye du tas mukk yaakaar man xaawalu xaa wala man xawalu xaajatan fi milkiha wajadu nuj nujxal xawaaiji laa yalqawna xirmaana mu ne ku mas a am ci moom ku mas a ñëw ci si soxla rek boo ñëwee mu jox la ko waaye doo dellu mukk di yóbbaale loxoy neen kooku nag képp koo xam ne yaa ngi koy sikkal wala nga di ko ayibal ci loo xam ne du lu mu wax lu ñaaw du lu mu jëf lu mu ñaaw te loolu mës sa am ah yow moom na leer na yaa ngi xeeblu sa bopp yaa ngi xeeblu sa bopp man ayyibuha bila qawlin wala amalin yuzra alayha fa kaana allahu dayyaana noonu it la daan dinde di dindee xiif képp ku xiif ku jëm si ci moom daan dàq maru képp ku mar ba ñëw fi moom loolu sëñ Musaa Ka indi na ko sax dégg nga ca wolofal ba bi muy melal soxna jaara ba wax ne Euh, dégg nga mbàndam ma mës la day mës la day te dañ daan rootaan mooy naanukaayu bépp dongob maanaam njàngaan mooy naanukaayu bépp dongob njàngaan euh, wax nañu sax daana roote ci teen ba balaa agsi ci kër gi dongo yi dañ koy dogale di ko tànk mu di koy jox ba buy ñëw ndab lim yoroon feesoon dell waaye day mujj euh, jeex takk ba day delluwaat ca teen ba wax nañ sax daawul àgg daawul yem rek ci di dox di di di jox nit ñi lu sedd ñuy naan daana defar lu mel ne ay njar euh, di ki def dégg nga di ko saral ba mu sedd mu koy jox euh, doomu aadama di ko jox donga yi daa yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di ko joxit doxandéem yi nga xam ne dañuy dox ba juux fa ànd ak mar wu métti euh, te boobu ku ne xam ne ne gox yi ñu nekkoon gox yu tàng la moo xam fii ci bawal la moo xam ci la bu ñëwee mu leen di Euh, muy saral seeni xol ci naan yu sedd yooyu di leen joxit ñam yu neex yooyu euh, da waaye daawul yem ci rek di ko defal doomu aadama yi wax nañu sax ci biir kër gi sax ci wetu njàqali defoon na fa ab naanukaay boo xam ne euh, pour picc yi la maanaam njanaaw yi nga xam ne ñooy naaw dañ fay ñëw di fa di fa dégg nga di naan si moo tax mu ne in zaaraha jaaiun aw zaaraha damiun saara bi ma indaha shaabaana rayaana mu ne yow nag yow mi nga xam ne kon yaay sàkku euh, fajuk aajo yaa bëgg ay may booy ñaan ñaanal ci barkeb soxna jaara soo bëggee soxla it boo fa mënee jaar jaar fa mu fajal la soxna boobu sa soxla fekk na mi ngi dund waaye romb so saa moom daal saa boo fa rombee daal da nga gis teraanga joo xam ne day tegu ci kaw teraanga mooy teraanga yu bari rek yaa taaliban nailan fasal bi jaaratina wamrur biha talqa ixsaanan fi ixsaana daal ne bari waa koo xam ne dafa soxla ndimbal ba ñëw seet si ko waaye su koy dimbale sax xër ga muy xër la mu koy jox dana ko fajal ba fajal ko sax loo xam ne bokk ak la mu sàkk woon mu ne buy delluwaat sax moom kooka aajoom day faju ba day mujj di faj aajoy ñeneen kam mustainin ataha wa hiya tunjiduhu fartadda yunjidu insaanan fa insaana bu waxee loolu nag mu daal ci dugalaale nag weneen bayit boo xam ne da caa tàggaale kilifaam gu baax ga di sëñ Mor Anta Sali ndax ginnaaw soxna jaara nii la mel doon jàppale sëriñam ci daara ji di ko jàppale ci ñam wi di dégg nga di togg lu neex di jox donga yi di defar ay naan gi sedd di jox donga yi loolu it képp koo xam ne dangaa ne ci ron ab sëriñ daara wala ci kilifa diine goo xam ne mbooloo dafay jox si war ngaa roy soxna jaara kon ci lu dégg nga ci lu mel noonu doon ku yaatu koo xam ne da ngay xajoo ñëpp ndax mooy tax eh, ab ab liggéeyam moom Euh, maanaam kilifa gu baax gi taxawee taxawaay boobu mën a nekk liggéey bu sontu liggéey bu bu bu bu boo xam ne day ah, day mucc ayib mu ne nag euh, bari waa na nit koo xam ne day doon ku gàttum xel koo xam ne xamul dara waaye bëgg a xam dara tax mu ñëw ci daara yi sëñ Mor Anta Sali mi nga xam ne mooy sàngub soxna su tedd si buy dellu kooka day bari xam-xam ba day jàngal sax saxbaan ibnu saxbaan wala saxbaan waa'il Euh, saxbaan waayil euh, dañuy wax ne ab ku ku ku mënoon a xutba la dafa amoon ak may ci maanaam fannul xitaaba ñuy nekk li sax lu xorom loo xam ne mas na koo def ci kanamu Muawiya ibn Abi Sufyaan euh, Muawiya di ko xutbaloo diggante tisbaar ak takkusaan muy xutba xutba bi maanaam wax na ba àggal dégg nga xadda xaddami ko wut maanaam taxawut jaxasewul maanaa ak maanaa nga xam ne daal lu mu wax du ci delluwaat te wax ji day doon wax ju am njëriñ bi mu demee ba tàkkusaan di bëgg a jot Muawiya daal koy junj ko na taxaw mu ne ko uh, moom mu daal koy liyaa ci loxoom ne ko bul dagg samay wax ndax man kat uh, maanaam julli yaa ngi soññee julli waaye day mel ne ñun ñoo ngi ci julli nga xam ne day moom li mu bëgg wax mooy maanaam xutba bi bi muy def mi ngi ciy sant yàlla mi ngi ciy digal lu baax mi ngi ciy tëkkoo mu ne ko nag loolu nag day mel ne ñu ngi ci julli nga xam ne uh, ni ni ni ni mu ko waxee sax ci ci ci arab bi dafa dafa neex lool. Euh, waaw maanaam hiya hiya amaamaka maanaam julli gi mi ngi sa kanam nahnu fi salaatin wa tahmidin wa waadin wa waid bi mu ko waxee nag euh, Muawiya daal di ko ne yow de yaay axtabul arab yaay ki gën a mën a xutba ci dégg nga arab yi nee ne mun na ko déedéet kay maanaam du arab yi dong ak sax dégg nga ajam yeeg nit ñeeg ak ak maanaam jinne yeeg ñëpp maa ngi dàq xutba <laughs> mu ne ko waa loolu loolu loolu la nga xam ne kon euh, saxbaan moomu nag ni ko ni ko ni ko yàlla may woon mu nen mu nekk mën a xutba nag euh, sëñ ma Ant sëñ Masamba Mariam mi mi ngi mi ngi tàgg sëñ Mor Anta Sali ci xam-xamam ne bari waa na ku ñëw gàtt gàtt àlluwa xamoo dara nga ñëw ci fi moom waaye boo fay jógee da ngay dem bay jàngal saxbaan waa'il ci fasaxa ci fasaxa leeru làmmiñ ak kii bu ko defee xasida gi nag mu koy jeexale nag ci wane ne soxna jaara mi may tagg nag bi mu bi ko yàlla mayee ah, maanaam ki nga xam ne mooy yaakaaru jaam yi Cheikhul Xadim ci la mboolem soxna yi ñi nga xam ne dañ leen daan tudd ci mbaax ñëpp seenu tur fay ndax soxna jaara moo euh, fés ba buñ ko tuddee day mel ne sax maanaam jeneen jigéen ju baax sax amul fekk na ah kay am na sax waaye nag ak mbaaxam moo mel noonu wa kam xaraira illatin xamul na fala yuzkar na min zikriha isgawsuha baana daal ni ki may wax nag soo ko xamul mooy ki nga xam ne aw taggam daj na réew mépp ñëpp ko xam booba soxna jaar ak seegul fii mu agsi xam naa loolu loolu Seydou Xarim di wax ci maanaam saadatullah bi muy misaal xam naa ci wàllu nax yi ba ci wàllu nax wo bay bay ba bay wax naan sama yaay am mbiram dafa siiw sama wajur wu jigéen maanaam mbiram dafa siw day mel ne lii itam xam naa dëppoog loolu te booba ku ne xam na ne ñu bëree bëri xamaguñu soxna jaara ci xamug zaahir gii mu fese nii ci àdduna waaye mu ne amal bilaada jamian matxu jaaratina fallaahu yumlikuha yumnan wa iyaana eh, tagg soxna jaara daj na àddina daj na réew yëpp kon nag ndax yàlla moo ko jox wala yàlla na ko yàlla dolli kon jox eh, barke te jox ñu ko ñu itam daal nag bayit bi nga xam ne mooy bi ñuy jeexale nga xam ne moo mujj mu daal ci taggaale nag aw ak ñi ko jege mu ne nag am amma abuha baayu soxna jaara way juróom bu góor muy kon ma busa awa mbaay axuha ak mbokkum soxna jaara ma muy sëriñ busoo mi nga xam ne incha allahu taala dinañ ñëw ci moom ci émission yi ñëw xaaluha ak nijaayu soxna jaara muy tafsir Mbàkke Ndumbe mi nga xam ne mook soxna Aswaala ñoo bokk lépp mu ne ñii nag fahumu xayrul mashaayixi axlaaqan wa adiyaana ñooy ñi gën ci sëriñ si ci wàllu jikko ak ci wàllu diine kon bokk yi lii daal mooy eh, xasida gi nga xam ne sëñ ma sàmba eh, sëñ ma sàmba Marema moo ko defoon ci soxna jaara ñu indi woon ko rek ngir mottulee ko jataay yi nga xam ne moom lañ doon def ci soxna su tedd soosu incha allahu taala ni mu jeexale xasida gi nga xam ne dafa tudd ñenn ci ñi nga xam ne ñu jege soxna si lañ bu ñu jël siwaatee danañ nag jël ñenn wala kenn ci ñooñu waxtaane ko lu jiitu nag ñuy euh, ñëw ci euh, maanaam njàngum sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo ko jàng ndax ñii ñuy tudd fii da am ñoo xam ne ñoo sëñ sëñ bi dafa jaar ci ñoom ci wàllu njàng kon laaj ne ñu wax ñooñu ñooy ñan ba bu ñëwee di xam le ne sëñ bi jaar na ci seen seen seeni loxo ak seen daara ñu xam ne loolu lu yàlla la lu mën nekk la kon ñoo ngi yemale fi suñuy kaddu di leen sant ci teewlu bi ak bàyyi xel gi yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon suivre ci GMT TV eh, ci émission bi nga xam ne mooy xayaat Cheikh al Xadim ñu di leen di jox daje incha allahu taala ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi di ñëw wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin salaam aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu يعينني على الثواب سمد بجاه خير الخلق نحم الجيد